السلام عليكم ورحمة الله بوكو جولي نيغي لين نوي فيب فمي نيك سي ادنا بي نيغي توغ امام شيخ تيان علي سيسي نيك امام غان موسكي بي مدينه باي تاي مو ملني موي بيس بي ني نيك سنتو وير بيغا خامني موي ويرو تبسكي في سي سنغال نيي واخ مو تومبيك اج سيرين بي لان يان موي غنه ليغا خامني امنا تشو فكي فاني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه mangi sante yalla bu baax di julli ci nante yalla sallallahu alaihi wasallam sallam ko waa ak sahabaam yeb ak kep ku top ñooñu ak kep ku leen top ba pencam yalla di de yalla benen yoon ci weer bi nga xamne ñu ngi koy séntu tay mo war a teeru muy weeri tabaski mooy dul hijja nga xamne tay ya tey yeb ñam ñi am aji ñëpp ñu nga jëm fofa ñi nga xamne tam yalla defar ci ñoom ak ñu ngi toog di xaar bi si tabaski bi ñëw muy fukki fan yoo xam ne tey jii ba ba ñuy waxee bi si tabaski fukki fan la borom xam-xam yëpp wax nañ ne mooy fukki fan yi nga xam ne moo gën ci at mi fukki fan yu tegaloo yu gën ci at mi xam nga bisi gàmmu mën naa gën bisi tabaski mm-hmm. laylatul qadri itam mën naa gën guddik tabaski waaye nag fukki fan yu tegaloo yu gën mm-hmm. muy fukk ji mm-hmm. moo tax yàlla gëñee ko wal fajri wala yaalin ashirin dégg nga ko wa shafi wal witr wala yaa leen ashri jooju fukki guddi yii la ci yàlla jum muy fukk yoo muy fukk joo xam ne fukk ju am ngëneel la comme ni ma ko waxee mooy fukk ju gën ci at mi yoo xam ne yu tegaloo la benn bu baax ñaar ñaar yu baax ñett yu baax ñeent yu baax juróom yu baax juróom benn yu baax ba ba ngay waxee fukk mm-hmm. yoo xam ne benn bis la namu ci benn bis bonu ci mm-hmm. mooy fukk ji nii mm-hmm. xam naa ngëneelam yëpp nag foofu la jógee te bisu tabaski bi nga xam ne itam mooy bisu fukkeel bi muy bis bu màgg boo xam ne yàlla def ci fulal jaam yi seen jëf mm-hmm. ci saraxa benn mu defal la ko juróom-ñaar fukk mm-hmm. <coughs> looloo tax ci xutba gi nga dégg bàyyi di wax ne képp ku ñëwee yoon booy dellu na nga delloo weneen yoon bu bokk te nga ñëwee woon mm-hmm. mu ne ngir sarax miskin ci yoon wi booy dem booy dëpp sarax miskin ci yoon wale ci riwaaye itam mu ne ngir wane yi lislaam ci ñaari yoon yëpp. dëgg la waaw moo tax fukk la joo xam ne ay ngëneelam lu limu la weer wi ñu génnee itam muy weeru diggi moom itam ay ngëneelam lu limu la ci ñooñ baatin hmm. waaye nag fukk ji moom amut fukk ju mel ni moom. Hmm. Euh, jërëjëf sëriñ bi sëriñ ndax ma doon nga ñëw ñëwal ci taarix ci premier aju Baye Niass. Baye premier ajam mu ngi nekkoon 1937. mu ngi fi génnoon ci décembre fii ci Sénégal fii ci Dakar ci bato dem foofa dellu si fii ci njëlbeeni avril mën nañu wax ne daal ñetti weer ak ay fan ci la aj bi muy aje nag boobu aj cherut wala xaalis bi barke na lool booba ndax six mille moom la ajee ci 1937 allah six mille francs moo ko yóbbu indi ko <laughs> loolu nag xam naa bokkut ak yóbbalam yóbbali boppam comme moom jëndkati séeréer la fu mu dem na bor yooyu té téré yu bare bare bari nga gis ko tay ci bibliothèque bi nga xamné ne bàyyi ko moom ci ajam ñu ko la ko jënd da gis na lettre bu mu bind ci dal di ko wone jënd na téré sangam jënd na téré sangam jënd na téré sangam lepp ci aj gogol ko jënd bi mi aji nak yaaya ma ngi dund maam ko mu ngi feebar ba bi mu ko tagu daf ko wax ne ko gannaaw ko la ne dana la fi fekkat do dess ma gannaaw bàyyi dem ay am ñetti weer ak dara dellu si bi mu ñëwee amaat ak yaayam juróom-ñetti fan yaayam door a génn àddina moom ci boppam bindal na boppam mu ne ba ma jógee ci aj gi ba dem ci jumaa ji def ñaari ràkka yi ziyaara jumaa ji ma dem ziyaara waa kër gi ziyaara suma yaay mu gërëm ma ma gërëm ko mu toog juróom-ñetti fan daal di gën aj googu nag mën nañoo wax ne mooy aj gi nga xam ne ci la faydu bi tàllaloo ndax aj googu ci la taseeg buuri kanu bi ñuy wax Abdoulaye Bayero mhm. Abdoulaye Bayero itam ba muy aji dafa duggul woon ñetti nit xalwa mhm. ku ci nekk mu ne la lii mooy suma soxla damay aji te may buuri kanu bi njëkk a jógee kanu di aji makka mhm. ñaareel ba bugg naa bu ma demee tase ki nga xam ne mooy aji mati waxtu yi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Tidiane ma jàpp ci moom ñetteel bi bugg naa su ma fi jógee suma doom sanu si nekk suma xalifa ñoom ñëpp bañ génne xaloo yi wan ko ne ko.